ñaari ndaanaan ñooy bëre ñaari mbër ah, ñaari mbër yu am caay-caay da ngay leewtoo ñoom ñaar dégg naa la naka la ñu ngi leewtoo waat pied gauche contre pied gauche dañuy raak ba seen yaram tàng ñi door a bëre nee na ñu tekk ñoom ñaar ku nekk am nga avertissement sekk ndaanaan ñaar ñaar wala ñett ci li ma fekkee ak li ma fekkeewul armée mi ngi ko topp aj garde bi di ko bloqué de gauche à droite Seck ndaanaan xamul fa muy jaar ay Seck ndaanaan ay fu ndaanaan di jaar Seck ndaanaan ay Seck sa ginaar waay bàyyi naa sek ndaanaan gi ñu ngay léew toowaat di xoolante armé moo tent bopp bi Seck ndaanaan booy xool bu ko jéngu woon tuuti mën na cee génn waaw am na mon ami moo koyal Baye Balla Mboup mon ami sama bat maa la bëgg maa la bëgg non je suis ton frère je suis pas ton ami je suis pas ton ami Dieu te voulait mon frère non tu laisses le bas tu laisses le bas waaw loolu la nekk Baye Balla la Baye Balla Baye Balla yow mi nga si wax baax yëpp yow yow ko ko ko yëpp ak les ñoom ñaar ñi ngi leew toowaat mais Seck ndaanaan bàyyi na xel bu baax a baax armée moo tax bareetul moo tax bareetul daf ko bàyyi xel de trop dafay moytu de trop si avertissement boo moytuwul rek lay jeexee parce que Seck booy xool bëreetul armée mi ngi taxaw fi mu taxaw laay armée da ngaa napp nag. xoolal armée bu ŋaangee da ngay def ne dafa sonn te sonnul dara dalu ko. arbitre jeexal na combat bi arbitre jeexal na combat bi armée la ñuy jox ndam li. moo ëpp avertissement jox nañu ndam li armée booy reefaat. accompagnateur kañuy daan nag ma ngay doore armée day wax ak moom mu koy dóor bëgg lii moom bokkul ci làmb bëre nga daan nañ la jeex na jarul dóore. kii accompagner mbër bi di sekk ndaanaan armée day wax moom mu koy dóor contre mu koy dóor arrêt jarul lool de. bu Siteu pare na ma ngay dem ci géew bi mi ngi ànd ak ak njambaan ma ngay dem ma ngay dem bu Siteu ngi noonu moom mooy bëreeg Laurent Ndiago pare na ma ngay dem ci biir géew bi bu Siteu ngi noonu il dégage la forme et la sérénité dafa xaw a sedd rek mais bilaay tiit nañu. mais li ngeen koy sang nag xanaa seet ah, ndox bi tàngal ngeen ko. saa yi min na lii mbabarkat la. saa yi la min na lii góor na alxuraan waaw min na ko mbabarkat la. gaz yi booy di tàngal di baxal yi min na lii mbabarkat la. amee ah, ndaanaan ngeen di bëreel. kii moo ko gën a doon ndaanaan kii bëreegul sax kii bëreegul barke alxuraan yi kii bëreegul. war na alxuraan. te mbaa xeebu leen ko. non non xeebu ko dinañ ko jox cër bu ko cër bu mu moom. ñu ngi naan kii moo ko mën duma dinañ ko daan barki Serigne Bamba. yéen ko duma si kanam léegi léegi. kan moo barki Serigne Bamba aada. dina ko duma dina ko daan si kanam léegi léegi. mais doo leen def nang. non non joxel waa yow. aada da koy duma da daan si kanam léegi léegi si kanam. Ah, du naagu wax ngeen wax ngeen ko bu du naagu waaw bu ba wax ngeen ko mu moytu ko saay saay la aada lépp ne ko lépp saay saay lépp pare ne ko lépp aada pare ne ko si kanam ngeen xam si dara

Thank you. Ndiago Laurent rakk ci liis Ndiago ba ngay arrière bu Siteu moo wan kanam bu Siteu teg na ko choc bu Siteu teg na ko choc Laurent Ndiago bu Siteu le combat tant attendu Laurent ak bu Siteu Laurent Ndiago mi ngi génn saaku yi bu Siteu teg na ko choc andi ko xeex andi na ko seytaane Laurent Ndiago génn na saaku yi ña ngay xeex arbitre siffle na ñuy xeex la ilaha illallah muhammadu rasulullah sallallahu alayhi wa sallam bi combat bu Siteu mayu ko dara avertissement pour Laurent Ndiago Laurent Ndiago am na avertissement arbitre bi ba mi ngi waaj a sifflé ndeysaan combat bu neex la xool amateur yi ak supporters yi bu Siteu mayu ko dara bu Siteu mayu ko dara Laurent Ndiago moo ñu wan ginnaaw bu Siteu moo ñu wan kanam combat déclenchement est-ce que Laurent dina feral ay rongo magam di Liss Ndiago mi ngi jugee jàmm gën si Mbaaw bu Siteu ma ngay jugee école de lutte war faram ànd ak ñoom boucher ndeysaan écurie guy gi massa coono guy gi attention Laurent Ndiago bu Siteu da kay a may confiance mi ngi arrière bu Siteu arrière Laurent Ndiago na ñaari yoon arrière na ñaari yoon arrière na ñaari yoon est que tayu ko que li def tayu est-ce que li def du stratégie est-ce que yóbbu na ko ardo di ñamal na ko mooy yéen ñamal ñamal na bu Siteu waa kii nan la ko ñamale am nga ñaari avertissement Laurent Ndiago am ko ñam ci bet dañ ko ñamal bu dem ardo gaaw nga nàcc de diggante Laurent Ndiago ak bu Siteu bu Siteu tegaat na ko choc bu Siteu tegaat na ko choc da ñamaat de Laurent Ndiago ma ngay arrière rek armé loxo bi mi ngay xiiral rek li séeréer yi wax yopp sam kam xiiral yopp sam kam xiiral su dooree day dal attention seere na de bu Siteu seere na de Laurent sànni na waat benn droite bu Siteu fayu na da ngay bañ a may raak raak ba mu neex booy xool bu Siteu moo gën a am volume wala boog Laurent Ndiago moo gën a am volume bu Siteu bu Laurent Ndiago mi ngi xeex nekk ci corneeru géew bi angle lay bëreeg moom angle angle njaago <laughs> wala angle séeré wala angle tukuleur wala angle lawbe ndaw bëri tànn pér ndaw lëmbal gu metti waaye bi xeex bu tar lay andi ñu ngay leewtoo léegi bu Siteu tëj na ko ci angle ba angle lawbe ña ngay ña ngay leewtoo di naxante bu Siteu mi ngi koy teg choc Laurent Ndiago sànni na bu Siteu léegi mi ngi sóoraale dóor yi ñaw ñaw dalaa ñam ci pet nga naaj Laurent Ndiago mi ngi dóor Laurent Ndiago xanaa tey dóor mu daanu la andi Laurent dóoraat na mu dal eh Laurent mi technicien la de Laurent Ndiago il n'a pas droit à ma ngay duma ma ngay duma nag e bu si dafay na attention ña ngay dóorante xeex e waay xeex arbi sifle na arbi sifle na bu yàgg yee yee Laurent mi Laurent andiwul jàmm de e waay bu si da demande na ardo waay bu Siteu demaat na Ardo Laurent Ndiago yóbbaat na ko Ardo laay lay la laa tey Laurent Ndiago andiwul jàmm de tey kii andiwul jàmm de tey Laurent Ndiago andiwul jàmm de ay waay Laurent Ndiago xeexu Ndiago waay ay waay bu Siteu andil la xeexu Ndiago waay ay waay bu Siteu am nga problème waay ana waa école de lune Mor Fadam arbitre ba dugg na ci biir géew bi woo ko ña ngay wax moom ci biti Matar mooy waxa moom Matar Ndiaye soo manager bu Siteu mi ngi dem Ardo mi ngay taxaw di faju Laurent Ndiago mi ngi koy xool Laurent Ndiago nee na gars yi def leen ndànk dama koy duma ba mu naaj dina naaj bay bëgg a dee ma door koy daan bu Siteu dellu si na waat ay ah, waay ron ron ron ma ngay wax ak moom Laurent Ndiago am na ñetti avertissement e bu Siteu demande na Ardo te yóbbu nañ ko Ardo waay ma ngay naaj ay eh, waay bu Siteu waay e waay pigeon yaa ngay naaw waay dañoo jommi Modou Anta sàcc na pigeon bi <laughs> reporter bu Siteu nga Ardo di faju Laurent Ndiago ngi taxaw di ko xaar nee na ko boo ñëwee ma ñamaat la jam naa la ñaari yoon ngay nàcc di faju Laurent Ndiago mi ngi wax ak ay coacham ak ay supporter am neen leen taxaw day rek xaar ma sifle na waat diggante bu Siteu ak Laurent Ndiago léegi nag bu Siteu da ngaa war a taxaw ci digg géew bi waaw eh Laurent sànni na mi andiwul jàmm de E waaye dil nañ ko xeexu njaago waaye xeexu njaago ca àngal law be léegi jéego nañu àngal law be ña ca biir géew bi Laurent Ndiago sànni na droite jiital tànk day joor day xeex door a bëre bu si de pied gauche garde normal gars yi nee normal ak fausse garde amul waaw xawma ma fan lañ ko jàngee ñu ngay leew too ñoom ñaar eh, bu si de xeex bi jaarul yoon bu si de li ngay xeex jaarul yoon jàppante nañu léegi bëre feeñ na léegi bëre day feeñ Laurent Ndiago mi ngi door ay uppercut Laurent Ndiago tey andi na kàttan ak xeex de xeex bu tar ma ngay dóor rek ma ngay duma rek ma ngay dóor rek dóor yi sax man dama koy yëg Laurent Ndiago ak bu si de jàpp na loxo gauche bi fàqat et Moussida rëppoon na pied gauche di genou gauche Laurent Ndiago moom ma ngay xeex rek xeexu Ndiago yi xeexu Ndiago du jeex ay waay boo leen àttewul jeex boo leen si waxul du jeex da ngay doonante ñoom ñaar Moussida defal ndànk ak say téere yu bari mën ngaa jumloo sa bopp wala téere yi téere laa bari li nga takk daa bari ma ngay tekki sànni ay waay Moussida ñam na bu Siteu fayu na ak ay percute a ah, teq na ko bu Siteu effacé na ko daf ko teqoon bu Siteu effacé ko arbitre toogal arbitre arbitre jooda arbitre jooda voilà merci beaucoup a ah, Laurent Ndiago door na ci bop coup irrégulier ma ngay dooraat a ah, Laurent Ndiago mi xanaa tey daa mer xanaa tey dañ ne ko del dóor rek ils ont mobilisé bu Siteu fayu na de waaw waaw door fayu Laurent Ndiaye ay door na ko mu daanu waaye da doon daanu mooy yaa yooyu tuuti bu daanu bu Siteu nee na fayu naa laay la dafa tërëf ñam nañ ko waaye ñam nañ ko ay waay xool leen yi xool leen yi it sont contents ils sont contents les supporters sont contents ce sont les supporters de bu Siteu ndeysaan kontaan nañu parce que seen mbër dafa fayu arbitre bi sifflé na waat ñoom ñaar ñu ngi xoolante arbitre nee na ee eh, eh, waay Laurent dem na Ardo waay ee eh, waay door fayu waay ee door fayu Laurent dem na Ardo Laurent chez Ardo la njaago ñu ngi faj daga ngaa dóore yóbbaate Ardo yow tamit ñu dóor la yóbbu la Ardo dañ ko dóor mu dem Ardo dañ ko duma mu dem Ardo ay waay demante ardo demante ardo demante ardo waay bi sifle na waat ar bi sifle na waat Laurent Ndiago dem na arro ba ñëw dem na faju ji bu Siteu ko duma mu dem ardo dafa duma waate ñu duma ko tey ña ngay lew too waat bu bu doon maay man biir géew laay bëreeg moom ña ngay takk téere da ngay tekki téere yi di sànni rek li ngeen takk daa bëri Laurent Ndiago wàññi na 4 kilos de téere tekki na waat sànni waaye lii lañ la sant da ngay tekki di sànni di dagg di sànni maa xalaa yaram bee diis dañ ko duma ba yaram bi tàng jër jàppante nañu ñoom ñaar bëree day feeñ bu Siteu Laurent Ndiago bu Siteu moo ñëwaat kanam Laurent Ndiago à droite yoo yaa dugg sama gémmiñ attention o oh, yoo yooyu dañuy dugg ci gémmiñ moytu leen buñ la duggee dañuy màtt sa làmmiñ ba mu dagg te ñun suñu liggéey mooy wax jàppante nañu loxo waaw prise bi rafet na trop neex na ma trop attention bu Siteu daf ko bëggoon sànni daf ko bëggoon wéyale Laurent Ndiago bu Siteu ña ngay ñoom ñaar ñu ngi ñoom ñaar xaaral ma wàññi sama volume man tamit li may yuuxu metti na jàppante nañu ay baaraam ñoom ñaar tegante nañu ay bopp bu Siteu jël na loxo gauche bëggoon teg ci ngemb mais Laurent Ndiago may ko ko léegi roof na ko ci kanamu Senghor yi jàppante loxo suñu côté yeneen loxo yi di liggéey bopp yi di bëkkante di riisonte waaw riisu laa wax waaye bopp yi riisonte ku nekk di dengeñ sa morom ak jegante bopp arbitre baa ngi wër si combat bi la bokk arbitre baa ngi jaabante di cokki cokki bu Siteu ak Laurent stade bi su feesee tey bokk nañ ci a à 80 pour cent arbit àtte na kan mooy dem ardo eh bu Siteu eh eh bu Siteu deelu na eh bu Siteu deelu na sa yoon nekku ci nee na arbitre Laurent dafa war a dem ñoom ñaar ñëpp ardo waa lii tey bëre ardo la bëre ardo yi bëre ardo ay eh, waay bëre ardo ñoom ñaar yëpp a ngi demandoo di jaabante ardo di faju rek ñoom ñaar faju rek ña ngay faju ji rek arbitre woowaat na leen sifflé nañu arbitre bi sifflé na ñu ngi toowaat ku nekk ñam na sa morom dem arro ñam ñamaat ku nekk ñam nga sa morom ñaari yoon mais bu si da ñetti yoon lañ ko yóbbu ardo bu si da ñetti yoon ardo Laurent Ndiago ñaari yoon raak temps bi jeex na mitaa nañu premier round jeex na ñu xaar deuxième round def ngeen fi lu saf sap bu Siteu dafa sonn teg nañ ko ci banc bi coach bi lora toog na ci kaw banc bi banc wu bi la toog ci chaise bi la toog Aline Gueye di ko conseillé xolal ñëpp ñëpp a koy conseillé ak a bëri conseil coach bi demanti cot coach bi demanti na dañ koy conseillé coach bi dañ koy indi ay conseil ak Matar Ndiaye eh waay bàyyi leen xale bi Matar Ndiaye <laughs> Aline Gueye ngi toog ci moom ma ngay wax rek Aline Gueye ngi wax rek mi ngi toog ci kaw chaise am Laurent mi ngi toog ci chaise u coach bi ña ngi wax ak moom léegi nag xaw nañoo set tuuti ndaxte ku nekk wàcce nga lu mat 70 kilos ci ay téere yoo takkoon mu dese la 30 kilos wala boog wala 90 kilos lañ dindi waaw mu des 10 kilos wala 95 kilos mu des 5 kilos waaw li ñu def seen digg rek mën na ñetti kilos moom. Laurent Ndiago moo féete à droite mu sida à gauche ngemboo ngemb bu xonk Laurent Ndiago ngemb ban xaw ma ngemb bi couleur ban la est-ce que du ñuul. attention Laurent Ndiago ak Bou Siteu nañu seen garde ña ngay def déplacement même pied la ñu jiital Laurent sànni na tey Laurent xeex rek la ëndi tey Laurent dama gis ne ay sàcc na tànk ba waaye jeex na eh, eh, eh. allah nakira wa faraja wee pep pep pep sànni sànni tànk sànni rocci sànni rocci sàcc rocci bu Siteu ay Laurent tey joom mi nga de Laurent dafa sàcc daag arbitre arbitre puusal ah arbitre moytul balaa ñu lay dóor voilà bu Siteu bu Siteu ngemb bu cuub la léegi gis naa ngemb bi comme wan na ma ginnaaw attention Laurent Ndiago ngemb bu cuub bu Siteu a ngi dóor ay uppercut ma ngay dóor ay uppercut Laurent Ndiago fay na Laurent bu Siteu da la bëgg a ba pare bëre loo la da la nax la. barki sëñ bi dalaa bëgg a xeexloo nax la dalaa topp xeex bi léegi bëreel a ah, waay a ah, a ah, a a lii lu mu lii mu lii mu yaay day la laa woo eh, waay affaire jinne ak affaire seytaane la fi def Dora Ndiago mooy mooy saay-saay pire mais bu Siteu nag xoolal dafa mel dafa ànd xelam bu Siteu tekk la def di ko xool rek daanaan la ka mu tuddee boppam la e e e nooto sigi eh, nooto sigi <laughs> nooto nooto nooto nooto bu sida da lay ubergit da dóor nga daanu de da lay nga daanu bu sida teg na ko bopp bu sida a caxabal wo pep pep pep waay laa ilaaha illallaah wooy Laurent Ndiago ca xabal na ko ah waay waay waay yëfi jinne yëfi jinne yëfi jinne yëfi jinne oh esprit fair play oh xale yi fair play nañu esprit fair play entre bu Siteu def nañu ah waay waay waay waay waay waay waay waay ah waay ndeysaan ndeysaan ndeysaan regardez ñi ñooy ay supporters bu Siteu fair play ay waay ndeysaan ànd ñu ñoom ñaar ci supporter yi ay waay bu Siteu ak Laurent Ndiago Laurent Ndiago dem na si ay supporteru bu Siteu Laurent Ndiago dem na si ay supporteru bu Siteu encouragé leen ñoom ñaar ña nga toog arbitre bi siflé na waat diggante Sokh ak Bécaye bëre nañu ba génn géew bi arbitre woowaat leen ne leen ñu bëree waat ci biir géew bi ndax mu leer sit bi ci digg géew bi lay amee parce que yéen ñaar dégg naa ay jinne ngeen ay jël jinne ngeen yi daan ñoom ñaar dañu ànd ak ay jinne astafurlaa damay wax noonu rek soq dooraat na Bécaye dagg na Leewtoo bi ay ndaanaan lañu ay ndaanaanu bërekat lañu soq numéro 2 ak Bécaye keroog benn soq numéro 2 daan na fi dimas bii ñu génn tey beneen soq numéro de moo ñëw moo gën a mag moo gën a nekk mag soq ay turondoom dañuy daan rek waaye man soq muy jël franc laa xamul fan la ko teg naa ko seeti ñu waxtaan ci loolu man de fu mu ko teg laa xamul soq sànni na benn gauche Bégaay di ko déglu Bégaay jàppante bi la bëgg beek ay eh, soq sàcc na waat tànk mel ni lu koy tuur ña ngay xeex ci suuf ña ngay xeex ci suuf jàppante nañ ñu xeex xeex bu sew xeex bu sew ci suuf ah ay waay tooj na ko da nga tooj Bécaye da nga bëggoon tooj Bécaye ak Sokh numéro 2 Bécaye moo ñu wan gauche Sokh moo ngeem moo ngeem bu lu ak bu rouge lu bëlali mooy lang noonu ngeem bi li mu dakk ci digg bi te bu bëla mooy lang ma ngay dóor Sokh a dóor ci suuf soq ma ngay soq Sokh gis na kuuram mais kuur bu ndaw la yor man kuur bu mag laa bëgg kuur bi Sokh kuur bu ndaw bi pour dëpp nokkos la ma ngay dëpp nokkos Sokh ngay Sokh nokkos ma ngay nokkos <laughs> ma ngay nokkos attention ma ngay da bëgg a sàcc tànk bi ngay Sokh nokkos eh ay ngay dëpp nokkos nokkos bi saful nokkos yi amul kaani amul poobar ndoxas bi netatula ak roof te roofu léegi saful engrais bi moo tax safatul Bégaay ak uh, Sokh numéro 2 jàppante nañu ñoom ñaar jàppante bi yàgg na nag jàppante bi yàgg na Sokh ngay Sokh eh Bégaay sigi na dóor Bégaay fayu na Bégaay a ngi fayu eh dóor si bop dóor si bopp amul dóor si bopp dañ koy teree dañ koy dem nañ jalang nag ah ah ardo ardo ardo ardo ardo am na Sokh numéro 2 dem na ardo Bégaay dem na ardo ñoom ñaar ñëpp ardo ñëwaat Bégaay tekki na ay téere yu bëri jox entraîneur am Bégaay moo féete nday joor ma ngay tekkiwaat élastique yi lay tekk élastique yi élastique yi sànni na ko pour coach bi mais coach bi amul droit dugg ci biir géew bi arrêté nañ combat bi ndax lan temps bi jeex na passe Fatima gis nga ñoo ñëw way sangoo na butéel ndox bataay mystique ku nekk ngi def loo mën Ada Fass def na lu mu mën mi ngi wax ay supporters am mais li nga nar a takk bëri na Ada Fass ngi ci cumikaay moom di sotteeku ay butéel ndaw sedd ndaw lox bu leen furnoo ngeen di sotteeku di jaaru jokkeel tamit mi ngi sangu Fane Tapha Mbeur. yi waa pigeon Ada bu ñu sànni day débar si biir géew bi sànni nañu six pigeon sept pigeon yu weex benn bi moo naaw huit pigeon moo des si biir géew bi e eh, Jokal for na benn Jokal for na benn pigeon bàyyi pigeon jàmbur Jokkel for benn pigeon waa Ada Fass day jël beneen day jël beneen da ngaa bëgg a supp bëgg a saaf mi ngi yoot benn bi mi ngi yoot benn bi rëcc na ko mi ngi yoot beneen Jokkel sànni na benn waa boobu naaw na Jokkel bi mu sànni naaw na daa for pigeon jàmbur sànni ko mu naaw. waale maa ngi sama suma xarit sama xaritu mbër man mbër laa comme ñoom Agogo sàkku xam-xam moo nekk sama consultant Agogo loo wax si Jokkel ak Ada Fass arbitre siw na Agogo waaw man kay li may njëkk wax rek mooy arbitre yi bu ñu njëkk sonn mbër yi wala ñuy ñuy ñuy ñuy njëkk yaakamte ñibbi amateur yi ndax léeg-léeg dafay waral sax nga gis combat boo xamante ne nii bu amee rëpp rek ñu joxe victoire fekk jeexut. mais lamb la combat bu garaaw la. waaw combat bu garaaw du du nuruwul sax combat bu yàgg wax dëgg yàlla. xale ak koo xamante ni moo ko jiitu ci lamb di Jokkel mais gis naa Jokkel tamit tey dafa indi mystique bu bees tax waaye Ada Fass la boo xam ni kafur réewul. man moo xam naa ne xeexul lay bëri. Jokal waaw day bëri Jokal moom lu mu war a def mooy siggi bi muy siggi sax dafa war a gën a bàyyi xel ci tànk mi Ada Fass xeexul day bëri ndax mënul xeexu léwatoo waaw korante lay gën a def ma defe na avantage bi si moom la nekk Ada Fass waaw bu jàppante si jàppante bi e waaye moom day saxal xeex bi rek bu jugee génn Jokal na saxal xeex waaw na saxal xeex bi kay ba waa ji jël ay coup mu leer ko ne jël na ay coup loolu mun naa wàññi dara lu bari si moom kay mi ngi sama consultant ñu ngi leewtoo ñoom ñaar le combat spécial Fallou Ndiaye production Jokkel jóge ci ay défaite Ada Fass ci victoire attention ta yara ñoom ñaar jàpp ko daan na ko. jeex na bettuma daan na ko. way bettuma bettuma daan na ko. laa ilaha illallah gaa yi màmm nañu. gaa yi màmm nañu bettuma. ndeysaan la jeunesse. la jeunesse. weex gi mu weex.

ndeysaan dafa mel ni ki dafay jooy émotion bee ko jàpp xam na lu ko dugal ci combat bi ah ay mbir la nag ay mbir la lu kenn dul wax ci kaw ndeysaan Jokal daanu na oh Mbarou Keba Kanté daanu na mais xale loolu dafa nekk si yoon nag dañ ko dañ ko bàyyi xel bu baax a baax a baax ndeysaan mi ngi ci digg géew bi ba tey génnagul. Thank you. Saare drapeau Bijou Ngoné 2STV sama xarit ndeysaan yàlla na la jig yàlla nañ koy def ay drapeau yi drapeau muy vingt drapeau par année Caatu Yaraax moo ñu wan ginnaaw Bulldozer moo ñu wan kanam Caatu Yaraax bëre bu gaaw lay bëre combat yu gaaw lay bëre Bulldozer ndeysaan doom la ci Père Bourkhane ay ah waay Père Bourkhane daa tiit waay moo ñu wan kanam Caatu Yaraax moo ñu wan ginnaaw mbër bu gaaw la sànni na e eh, e eh, e eh, Bulldozer ay waay waay waay jàppante nañu am nañ buntu mbot Caatu Yaraax bëggoon na ko mbot mbot ba mbot ba Caatu Yaraax daanu na Bulldozer daan na ko Caatu Yaraax moo jiitu Caatu Yaraax dafa mel ni moo jiitu way yaay Bulldozer nax na ko wuy sama wuy sama wuy sama Bulldozer daan na ko wala dañuy bëriwaat ar bi nee laay lay la laa wooy laay lay la laa ay waay bëre waat arbitre nee na leen da ngeen di bëre waat Ablaye demal faar laay lay la laa ralenti dañ koy ralentir muy yéex muy yéex mel ne ay kàkkatar yuy bëree def ko kàkkatar demal kàkkatar baget arbitre sifflé na waat arbitre sifflé na vingt une heures cinquante cinq minutes tey làmb dem na ba dix heures moins cinq lii war nañ ko saytuwaat waa CNG xoolaat leen ko dégg mais lamb ju mag ji moo demee noonu dafa am ay combat yoo xam ne dafa duré bëre nañ ko ñaari round caatu yaraax moo ñu wat ginnaaw amoon na jël wala dañoo njaax arbitre nee na njaax nañ bëri waat ndax mu leer Bulldozer li nga amoon est-ce que diñ ko amaat caatu yaraax caatu yaraax day joué nag loolu day joué ci psychologiquement ci xel mi waaw ni mu demee nii sànq nii yaakaaru ko woon de Bulldozer cokkaas na ko da ngay cokkaas da topp na ko caatu yaraax day maam caatu yaraax day maam door dóor ba xam kuy wàcc jàppante nañ ñoom ñaar Bulldozer na ko ëñ ko mboot sànni jàppante nañu e caatu yaraax rëpp na caatu yaraax fais attention caatu yaraax tension tension caatu yaraax dóor dañ defe woon caatu yaraax daf ko ëpp doole waaye mi ngi bëree ndeysaan daa mel ni ki doole feeñul doole feeñul de bëree feeñ Bulldozer moo ñu wan ginnaaw da kay xeexloo caatu yaraax moo ñu wan kanam ngemb lu vert Bulldozer Bulldozer ngemb bu rouge noir blanc marron am na marron di e marron APR ñoo ko moom de voilà bàyyil couleur jàmm bi ngay sa ngemb Bulldozer moo ñu wan ginnaaw Caatu Yaraax mi ngi dóor mi ngi dóor jàpp nañu Bulldozer jàpp na ràcc na ay tànkam Bulldozer moo ñu wan ginnaaw ñu ngi liggéey épreuve de force épreuve physique endurance et rëp rëpp rëpp daanu na Caatu Yaraax daan na ko bii nag leer na nañ bii nag leer na nañ Bulldozer demal defi recours bu la neexee caatu yaraax am na ndam ma ngay julli man seen julli bi laa xam ban façon julli la ak ban kii la ak ban religion ma ngay bërëngu périer périer na waat ma ngay def yëfu yëfu yëfu yaraax yëfu yëfu lebu ma ngay jooy ma ngay jooy ndeysaan Maodo jiini lam abine rapina sofe